الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fan yii ñu toll ñu bari ci réew mi surtout ndaw ñi nga xam ne diine ji da leen ñor rawatina liy xew ci monde islamique bi dañ koy topp daanaka bés bu yàlla sàkk nit wooma di ma laaj xeex bi nga xam ne moo nekk diggante Amérique ak Iran mbir yi nan la demee yéen ñëpp xam ngeen ne ajuma ji weesu euh, général bi gënoon rëy ci Iran ñu koy wax Souleymane al Qasimi Qasim Souleymani moom la américain yi rey bi mu génnee ci aéroportu Bagdad bi moom ak geneen kilifa gu rëy ci biir Irak ñu koy wax Abu Mahd al-Muhandis ñoom ñaar lañu reyandoo dañu leen sànni euh, euh, bomb yooyu mu dal ci seen oto ñu faatu ci ak ñu ñu àndoon léegi nag coow li bari na nit ñi ne guerre dina takk diggante Iran ak Amérique bu ngeen xoolee média bi àddina bi yépp ñu ngi ciy wax waaye jullit ni muy traité information bokkul ak ni ko keneen di traité te àddina bi bari na looy gis niñ la koy waxee ci kaw ak ni mu demee ci suuf du benn moo tax lii may bëgg a wax ngeen jàpp ko bu baax ngeen xam ne àddina bi actuellement xeex yi fi am yépp amu ci benn boo xam ne li ko taal yàllaa tax mën ngaa wax ne xeex yépp ak coow li ngay dégg yépp li ko taal ci suuf ak jubluwaay bi du dooleel dëgg waaye nan laay fexe ba gañe samay intérêt mooy li nga xam ne moo animé ñépp daanaka américain yi seen diggante ak Iran li ci nit ñi mën a xam ñaar lañ ñoo xam ne seen diggante du neex ci kaw ci kaw du neex waaye am na foo xam ne it nag duñ fa laalante parce que problème bi aussi ay intérêt mu ci biir ki nga xam ne mooy gañe ci xeex yi di am mooy réew yi am doole ki ciy perte mooy réewu jullit yi ñoom ñooy perte rawatina arab yi americain yi ak iraniens yi ñoom ñaar ñëpp kenn dëkku ci Irak loolu dafa war a leer ci boppu nit ñi généralu irakien bii ñu iranien bii ñu rey reyeewuñu ko biir réewam ci biir réewu jàmbur lañ ko reyee ki ko rey tamit dafa jógee dëkkam ñëw réewu jàmbur rey fa keneen loolu lu muy wane ñoom ñaar lu ñuy wut ci réewum jàmbur Irak réewu arab la Irak réewu arab la américains yi gis nga fa ñu jóge ca fa gën a sori ñëw ba dëkku jàmbur Irak du réewu arab réewu perse la ay perse lañu du nu ay arab lan la ñuy si ci réewum jàmbur ba ñu leen fay rey question yépp nit ñi nañ ko posé maanaam général bi américains yi fekkuñu ko biir réewam rey ko fa mais biir Irak lañ ko reyee li ma bëgg a wax foofu mooy tey ñoom ñépp dañuy xëccoo koom-koom bi nekk biir Irak Amérique li taxoon mu rey Saddam Hussein parce que Saddam gàllankoor la woon ci moom li mu bëggoon mu am ko looloo tax ñu faagaagal ko iranien yi aussi bi américains yi di waaj a rey Saddam dañoo àndoon ak américains yi pour mu rey Saddam parce que guerre yi doxoon diggante Irak ak Iran juróom-ñetti at la ca dee kenn xamul nu mu toll loolu ak li mu rey ci biir irakien yi kenn xamul nu mu toll moom Saddam dégg nga iranien yi dañu buggoon Saddam daanu jàppoon nañ ne bu Saddam daanoo ñoom seen loxo dañ koy mën a teg ci biir Irak day yomb ci ñoom lépp lu ñu bëgg biir Irak dañ koy am moo tax ñi gën a jàppale américain yi ba Saddam Hussein daanu mooy iran yi waaw xam nga mbir mi yàlla amu ci ay intérêt la c'est-à-dire que damay bañ ngeen jàpp ne xeex bi kuy nekkal lislaam la kuy xeexal l'islam ak ku noonoo lislaam du loolu foogoon nañ ne bu ñu reyee Saddam Hussein réew mi day nooy fu leen neex ñuy def di yaataa yumbe au contraire réew mi ba ñu reyee Saddam ba léegi Irak mooy réew mi gën a ñàkk sécurité ci àddina bi fa la Daesh juddoo fa la jabaatu jabhatu nusra nekk fa la qaida nekk réew moo xam ne kenn xam kenn mënu ko gouverner ti léegi léegi force yu mag yi nag ku nekk da ngaa ñëw bëgg a jël sa wàll ci gato bi loolu mooy problème bi Saddam Hussein rey nañ ko ku ko rey américains yi ñoo ko rey irakiens yi rey ñu Saddam iraniens yi reyuñu ñu Saddam parce que kenn ci ñoom ñaar mënu ko woon a rey ki ko rey mooy américains yi bi ñu ko reyee keroog bi ñu ko reyee am na iranien yoo xam ne ak ay chiite yoo xam ne ñu ngi woon biir Irak dañ doon fecc ndax kontaan di fecc di bëgg na tey rey nañ seen noon bi gën a rëy même scénario bi moo del siwaat Souleymane El Qasimi mooy général bi ñu rey ajjuma bii nii boo xoolee Syrie nga xool monde arab bi ñu ci bari dañ doon fecc ndax kontaan léegi ki reyoon Saddam moo reyaat général bi muy américain yi est-ce que yéen a ngi xool affaire bi américain bi ba léegi mooy rey démb bi nga xamee ne Saddam da koo jaaxal te Saddam di arab ba pare bokk ci sunnit yi ni ñuy tuddee sunnit danaa koy wax toujours du terme yi ñuy wax fi ci senegal ibaadu yi ñooy sunnit wala lool loolu du lool du loolu sunnit buñ ko waxee ci terme bii terme xam-xam mooy képp koo xam ne danga bokk ci ñeenti mazhab yi yow sunni yu nga boo bokk ci mazhab imam Malik mazhabu Abu Hanifata mazhabu Abu eh, Ahmad ibn Hanbal mazhabu imam Shafii ñeenti mazhab yooyu ku ci bokk rek ñooñu la ñuy woowee sunnit wala nga wax sax nga ne képp ku dul chiite rek sunnit nga boobu mooy séddale bi gën a gaaw ku dul rek sunnit nga ñooy majorité écrasante bi ci musulman yi mën nga wax ne un milliard et quelques million ci musulman yi ay sunnit la ñu quelques millions yi ci des ñooy ay chiite ak leneen léegi sa Saddam arabe la sunnit la kan moo ko rey américains yi bañ koy rey ñan ñoo ko jàppale mbokki arabiyam yi am ñoo ko xeex ak iranien yi américains yi rey ñu toog di fecc kontaan waaye même scénario bi moo dellusiwaat américains yi tey ki leen gënoon jaaxal ci Irak mooy Qasim Soleimani muy général bi parce que daanaka politique gu Irak tey Iran daf ci am doole seen parlement bi seen lépp. tey lu bari lu ñuy def dañuy déglu Iran parce que ñoo bokk benn appartenance xam nga Irak la fa nekk ci chiite dafa bari am na sax ñu ne chiite yi ñoo ëpp sunni di actuellement comme ñoom ay chiite lañu iranien yi ay chiite lañu dañuy jàppalante ci seen biir pour seen idéologie daal di tasaaroo léegi tey ka rayoon sunnit ba démb di Saddam bi mu gisee Abu Mahd al muhandisi al muhandis ak. Qasim Souleymane ñaari chiites yooyu ñu nekk ñu koy gàllankoor ci li mu bëgg moo leen faagaagalaat encore kon yëf yi affaire u intérêt la affaire xëccoo intérêt la léegi manil xaasir kan mooy perte ki perte mooy araab yi parce que guerre yi ngeen dëgg yëpp ci at yu mujj yi ci réewu araab yi lay doon ci réewi araab yi tey Iran ak Amérique ña ngay xëccoo Irak ku nekk na may jël li ëpp kenn du jël pétrole bi bàyyi ma influence su réew mi kenn du ko jël bàyyi ma Amérique na doo ko jël Iran ne doo ko jël xëccoo bi foofu la nga jógee foofu Irak demal Syrie Syrie nga xam ne histoire ci l'islam kenn xamul nu mu tey ñett koy xëccoo dictateur bu mag boobu di Bachar al-Assad dégg nga ak Union ak Russie ak Iran gisaat nga Iran fi encore gis nga ko Irak gis nga ko Syrie tey bu dul woon ñoom régime ba day daanu bu yàgg waaye américain yi jàngat nañu ne bu Bachar el-Assad daanu woon boobu réew mi kenn mënul fexe fexe fexe ba frère musulman yi duñ ko jël léegi nag ñu préféré réew mi. ñu rey waa réew mi réew mi daanu ci loxo russe léew mu daanu ci loxo iranien yi moo leen gënal réew mi daanu ci loxo frère musulman yi looloo tax ñu seetaan leen Irak ñu seetaan leen Iran ak russe ak Bachar el Assad daanaka lu mat tey huit millions ci Syriens daw nañ làqu ji plus de deux millions trois million morts am na fa mille mosque ñu egg ñu toj ko yàqu ko c'est parce que xam nañ ne dee bii nii moom moo leen gënal réew mi am démocratie moo leen gënal réew mi jaar ci yoon ba tey ci réewu arab la nga jóge foofu demaat yaman boo demee yaman xeex ba encore loxo Iran mu nga fa encore parce que xuusi yu ne ya fa nekk tey iranien yi ñoo leen faral ñoo leen di jox armu ñoo leen di dooleel ki doon coordonné loolu yépp nag diggante Irak diggante Syrie diggante Yémen benn nit la mooy général bii ñu rey mooy Qasim Souleymani loolu moo tax dee am arab yi dañ cee kontaan ñu bari ci arab yi dañ cee bëgg c'est parce que du wax dëgg yàlla du xeexu diine maanaam kii dañuy néewal doole julli di ma jàppale julli di déedéet guerru idéologie la guerru école la lu ci bari diggante sunna ak chiite dafa làqu ci biir lu baree bari diggante perse ak arabe dafa làqu ci biir kon li ciy dëgg dëgg dëgg diine bariwu ci moo tax daanaka di ci jël position du yomb waaye loolu aussi mënul ñàkk parce que tey diggante yaman yemen diggante arabie saoudite ak ak ak iran ñoo koy xëccoo parce que normalement bi ali abdallah salih daanoo frère musulman yi ñoo waroon a jël nguur gi mais arabi saoudite moo leen xeex encore gisaat nga yëf yi encore daanaka koo fi gis rek intérêt rek lay xool parce que frères musulmans yi tey Arabie Saoudite da leen considéré comme ay mouvement terroriste Ali Abdallah Salih saoudien yi jàppale ko biñ ko jamee sax dañ koo indi Arabie Saoudite faj ko ba mu wér delloowaat ko dooleel ko ñoom ñu seetaan xuusi yu ne yi am doole moo leen gënaloon frères musulmans yi jël pouvoir bi xuusiyuuna yi bi ñu demee ba am doole ñoo Ali Abdallah Salih bi ñu coalisé woon encore xuusiyuuna yi tourné waat attaqué waat Ali Abdallah Salih bi nga xam ne élément Arabie Saoudite la woon daal di koy rey encore di gën di am doole. léegi gis nga xeexu Yemen bi la fa saoudien yi rey kenn xamul num mu toll ñoom rey du dara ci ñoom ñoom nit amul solo ci ñoom seen bëgg-bëgg rek la ñuy jaam léegi Yemen xëccoo ba fa nekk diggante arabi Saoudite la. Iran encore gis nga lépp daanaka ay intérêt la rek sama xelaatee jàll sama mboolay ëpp doole yooyu mooy nekk ci xeex bi ñooñu nag yàlla du leen dimbali parce que xeexuñu ngir yàlla dañuy xeex ngir ay intérêt dañuy xeex ngir politique moo tax boo nekkee fii ci Sénégal toog naan man Iran laay faral wala Arabie Saoudite laay faral yow xamoo li xew parce que ñoom ñaar ñëpp ay raykatu nit lañu ñoom ñaar ñëpp ay raykatu nit lañu iranien yi li ñu rey ci population syrien bi kenn xamul nu mu toll wallahi maa lay wax lii iranien yi li nu ray ci syrien yi rey ko ci irakien yi rey ko ci waa yaman moo ëpp li Israël rey ci Palestine arabi Saoudite li mu rey ci yaman moo ëpp li israéliens yi rey ci waa Palestine te ñi ñuy rey ñoom seen mbokki jullit lañ nee nañu léegi ana diine ji ana l'islam bi donc te ñoom li seen xeex du dara ku ci nekk da ngay bëgg sa nguur gën a dëgër ñii ne ñun suñu famille mooy gën di dëgër mooy gën di am doole moo tax yooyu di jël position mantu nekk parce que ñaari reykatu nit lañu ñoom ñépp ay dictateur lañu mais foo fay far jullit ci dëgg lay far booy far arab day fekk mu am dëgg booy far perse day fekk mu am dëgg booy far booy far ak turc day fekk mu am dëgg mais nit koo xam ne amul dëgg ay intérêt ak ay bëgg-bëggam moo tax muy rey ay jullit di màbb ay réew kooku xeex far moom dëgg-dëgg ay caaxaan la kon dama bëgg a wax ne dëgg la Amérique moom kenn du ko jot ci rey lim def ci ñaaw ñaawteef ci àddina bi ñëpp teg nañ ci seen bët moom politique bi muy jëfandikoo bu ko neexee mu dooleel sunnit yi ñu attaqué chiite bu ko neexee mu dooleel chiite ñu attaqué sunnit yi kum ci dem ba doyal ci yow rek sàddi la jël keneen bi noonu lay defee politique am te loolu bu ngeen xoolee di seetaan rek war ngeen xam ne kii da leen di fooye benn la Laden bi mu fi jógee ah <laughs> biñ koy rey ñëpp a doon fecc te moom moo ko soxla woon bu leen fàtte nii dinaa koy wax toujours américains yi ñii ñuy wax ay terroristes tey démb moo leen doon dooleel moo leen dooleel ci Afghanistan 1979 afghans yi bi ñu jaamaarloog Union soviétique américains yi ñoo ñëw armée afghans yi wax arab yi ne leen yebal leen seen doom yi ñu dem xeexi jox leen alal ju dul jeex ñu ubbi leen frontières yi arab yi yëpp di dem àddina bi partout la nit doon jógee di dem Afghanistan di jihaad waaw man am na génn góoru égyptien mos naa taseeg moom euh, vers ay 2000 mu ne ma gisoon na ñaari sénégalais ci jooje jam 1979 mu taseeg ñoom Afghanistan danu demoon jihaad parce que boobu ku bugg a dem jihaad américain yi ñoo la koy yombal gars yi dañ doon dem ba université yi nekk biir Amérique ñuy jël étudiants yi. di leen jox ay billets ñu dem jihaati Afghanistan c'est parce que boobu jihaat bi daf ko arrangé parce que noon bi nga xam ne moo jàkkaarloog moom mënul ci moom dara muy Union soviétique mu làqu ci jullit ñi dooleel qaayida loolu loolu moo jur al qaayida biñ demee ba Union soviétique daanu léegi mën a gars yi ah yéen waa qaayida yii nag jihaat ji jeex na da ngeen di teg seen ngànnaay Osama benn Laden na ko ngànnaay duñ ko teg ñun li ñu fi indi woon mooy xeex ak noonu yàlla ak ku occupé suufu jullit ñi fépp fu américain nekk ci àddina bi teg tànkam ci réewu jullit dina fa génn mbaa ñu dal ci kawam loolu mooy son problème bi gis nga ba léegi affaire u la la naxee jullit ñi di leen utiliser di jëfandikoo seen état bu paree ci ñoom dooleel leen ñoo dooleel américain ñoo dooleel mujaahidoon yi nekkoon Afghanistan ñoo loon alqaida bi ñu paree ci ñoom lañ leen tuumaal ñoom ñëpp ne yéen ñëpp ay terroriste ngeen moo tax man bu ñuy wax affaire terrorisme dama leen bu leen ñu fontoo caaxaan yi ngeen nekkee man li ma métti sax nag mooy intellectuel yi mënul comprendre lii ne affaire terrorisme bi ay fola ay caaxaan la tubaab yi ñoo koy utiliser pour toroxal yenn jullit yi suñu paree ci kii dem ci kële. Osama Ben Laden du dañ koo lar dañ koo rey kenn suulu ko xanaa doomu aadama sax dafa am worma boo ko reyee bàyyil ñu suul ko mais dañ koo sànni ci biir géej gi waaw bañ ko defee loolu chiites yi dañ doon fecci lenn ci jullit yi dañoo bëggoon même bu bonee sax est-ce que yelloo na ñu koy sànni ci géej ñu humilier ko humilier jullit ñëpp ñëpp seetaan ko ña doon tàcc di ree Saddam Hussein ci la bokkoon kon nañu bàyyi xel li xew ci àddina bi lu ci bari ay intérêt la niñ koy waxee ci kaw ak ni mu demee ci suuf du benn yal yàlla dimbale lislaam yal na yàlla jàppale jullit ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullah rabbil alamin lil awwalina wal aaxirina qur'an أيها المواطنون والمواطنات إن الحكومة تدعو جميع الأطراف المعنية حول مائدة مستديرة لبحث مشاكل البلاد ginnaaw bi ñu sante yàlla jàmm ak mucc ragal yàlla rek ko koy am jàmm ñu yàlla mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo réew mi kër sax lu ma xam mënu fa ñàkk way jur ak soxna si bu ñu nekkee ci kër gi te ñu diisoo du dox su diisoowul ak njaboot yi tam du dox te famille mooy kër bu ndaw bi réew mu ndaw bi réew mu mag mi nag mooy Sénégal bi ñu bokk suñu bëggee développement bi ñuy séentu yokk gi ñuy séentu ak naataane bi ci wàllu bu nekk daje ku nekk génne xalaat boobu indi te sax su loolu war nañu mën a yomb ndax yàlla ci alxuraan wàcceel nañ saaru diisoo mooy waxtaan aaya bi may wax ci la bokk wa shaawirhum fil amr wa izaa azamta fatawakkal ala Allah yàlla nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaay njiit yaa jiite waaye deel jël sa xalaatu njaboot ci luy doxal société bi luy doxal réew mi na nga ci jël sa xalaatu njaboot su ngeen dajee xalaat ba takk nag ba yeew nag dara desul lu muy lu muy lu muy jëfe gis ne moo ci nga jëfe ko wa tawakkal ala Allah da sa bopp sa borom ndax ñu baax bu ñu dajee ci def lu baax suñu takkee ci dara néew na ñu bañ caa wa axawaati ida aradna najaaxan malxuusan naxus wa nadfau al kull li wadi jahdin jabbaarin fi hada al intishaar laa budda an laa wa illa fala budda an yakuna alfashalu bariya alxaatimu nihaan mbokk yi suñu bëggee bu da dajee waxtaan yëg jóge ca waxtaan wa ñu am résultat bu palpable moo di ne dañuy encouragé dañuy ñaaxante dañuy déggante ci ñu dem te bu nekk seet li gën ci say xalaat gën ca rafet nga indaale su ko defee li nga xamante ne bii foofu lañ yóotu jëm fa danañ fa mën a dem waaye nag luñ waxtaane te waxtaane wuñ problème bu peuple bi waxtaane wuñ dàpp peuple bi sonnoon nañ yanu nañ lu ñu attanut mënuñoo yenneeku ndax amuñ ku leen jàppale ñu yenneeku kon nag ku daje ci turu peuple bi li nekk ci yow peuple bee ko ci def ñoo la tànn ñoo ay privilège ba nga mën a ñëw nekk ci seen kanam foo nekk war nga nekk seen jàpp di leen liggéeyal loolu nga war naa suñ ko pa nag danañ daje dépense bi lu baree baree bari génne fa résultat yi négatif moo fi jóge wa narju an laa yakuna al ximaaru bayna al asammi wal abkam wal ama fal asam laa yasma wal abkam laa yatakallam wala ama laa yara wala muslim suñu dajee ca fa ñuy waxtaane mu a nekk waxtaanu ku tëx gumba ak gumba ki tëx du ki muumal wax silmaxa bi gis loo koy wan du dégg itam loo koy kon ñetti qualité yi ci ku fay dem mu ngi yóbbaale wa ahsinu niyyata wa dhanna fi ma baynakum wa bi aaraa'ikum wa afkaarikum aaraa'un wa afkaaru tuxrijuna fi nihaayati ila sawaa'i sabiil mbokk yi ñi ñu woote wañ war leen a woote seppi wuñ nañu wuy ji nañu rafet njort ci suñu diggante kenn ku nekk ne damaa bëgg a defar réew mi te sama xalaat bi su ma ko indee mën naa defar réew kon nag nañ leen ñiy dem nañ mel noonu wax ju na ngeen teew buñ la woo nga absenté naan gisuma ci sama bopp yow bala gis sa bopp gisal réew soo gisee réew bi rek kenn ngi ci biir réew wala tuxayibu dhann wala tuxayibu dhannan anna nihayatal xiwaar al fasharu daja maanaam bu leen ñàkk yaakaar ci ne suñu dajee ànd ak yéene ju sell waxtaane réew bi danañ am waaye daal bu baax tax la jëmmuloo wala lu baax am na fi ay ndaje yu fi jàlloon amul résultat jurul dara du ma dem baaxul demal tànn nañ la ci biir mbooloo bi nga bokk ci ñi nga xamante ni dañoo war a dem demal li yatlu rais al jumhuriya kaafat al atraf al maaliya duna istisna président na woote woote na waaye kum bàyyi kum waroon a woo na woo ñu war a ci biir ñi ñu woo itam nañu wuy ji suñ demee noonu tam loolu moo ci mën a génn asiyaas yu politicien yi bu am ko gis-gisal sa borom bu mu xëy na ci ñu ngeen di doxalee réew mi ngeen wuutee waaye bay ñu leen réew mi xalaat kon ñëw leen te nag du yéen rek ko war a nekk ci jataay ba ndax ba indépendance des indépendance ba léegi yéenay tëgg yéenay tulli yéen a ŋànk yéen a ŋànk ŋànk te ci fi ñu bëgg a àgg àggaguñu fa kon bu leen ñëw itam bëgg a aaj moo yëf yi ne nañ war nappkat yi laaj leen lu tax napp doxatul yan mooy seen jafe-jafe lu tax mënatuñoo lekk ngot wala coof wala jaay lu tax ñu wax leen li leen gàllankoor ñoom ngeen wutal leen solution ndax kat réew mi jaayee ni moom ci aboo bi rek liñ sëkk xanaa doraat waaye yeneen xeetu jën yi ma fi tudd moom danga koy jégg rek te aussi ne état limité autorisation de pêche yi muy jox borom doole yi ñëw di nag ndax jumtukaay yi yor di na fu ñu jaar nag foofu néew doole jot mu fa waxantuma la di nag nañ bàyyi xel baykat yi baykat yi lu tax sawartu leen bay lu tax mbay mi indeetul lëm daan indi ñu joxe seeni xalaat ñu ne ñun kat problème mu jiwu day baax ñun kat dañu am problème mu engrais ñun kat dañoo am dañoo am état wutal leen solution ndax kat ba baykat daan tedd ci mbay lii taxawal la daal taxawal li fi nekk di jaay kafe ak di jaay ay écouteur ca tool ya la leen daan fekk su suñ ci pare woon toog ci bi duñ bëgg a dem fenn ndax lan lii aajoo woon am nañ ko saxum juróom moom dégg rek lañ ci lañ ci am waaye kenn gisatul maanaam bay du nawet bi jeex nga góob nga am dund cinq ans waxtaan baykat yi waxtaan sàmmkat yi ne leen lu leen gàllankoor ci sàmm lu tax seen jur gi mënuñoo génne liitaru meewu mat ñu wax li leen gàllankoor seen gis-gis su ko defee bokk nañ suñ coono suñ jur gi ñu sàcc bokk nañ suñ coono liyeen liyeen bii bokk na ci coono boo xamante ni bii buñ ko faj duñ gën a gaaw a man suñ bopp xoolal lu lu gën a yomb dem ci meew wala soow su nawet bi ñëwee da gis meew bi ñu koy joxaat nag yi wala ñu dem di ko sottiwaat ci jéeg yi fi ni fi ni fi ñu naanee dañuy rattaat meew bi di ko sotti foofu lu tax buñ pré prévoir ay barab jumtukaay yoo xamante ni ak barab yoo xamante ni day jege gént ga fa mu nekk sàmm ga mu nekk su nappkat yi su sàmmkat yi ràññee seen meew ñu jënd meew wala ñu jënd soow conservé ko soxla nañ ko dañ fiy bëgg a ngénte mais ay bundaku soow la ñuy jënd di dem it bu yëpp yooyu wàll loolu suñ ko conservé woon denc ko danañu mën a denc bu ñu leen fàttee liggéeykat yi ngay waxtaan bu ñu fàtte liggéeykat yi nañ leen sóoraale ci yëf yi ndax liggéeykat bu nanguwut ba sax bu ñàkkee te gisul teraangam ci ñàkk bi dul sow la liggéey kon bu ñàkk nañ la jox sa ñàkk bu ñu fàttee borom entreprise état taxawu leen surtout Sénégalais yi bañ mën a jouer rôle bi nga xamante ni bii ñu war na leen. ba ñoom itam ñu mën a jël emploi boo xamante ne bii dana wàññi génn réew mi ci ak benn anam bi nga xamante ne bii suñ am luñ jàpp lool suñ amoon luñ jàpp lool sottee buñ fàttali jàngalekat buñ fàttali jàngalekat yi suñ dajee nañ waxtaan seen i biir ñoom it ñu joxe seen xalaat ñu laaj li ñu mën a joxe état jigéen lu man te su ko diggee def waaye nag rijaalati fi maqaami mawlud man yuridu xidmata haada al balad laa budda an yuli ihtimaaman xaassa liddiini wa rijaalihi bu ñu fàtte kilifa diine yi jàngalekat yi ustaas bu ñu fàtte imaam yi bu ñu fàtte nañu woo ñi ñu war a woo ñu teew ñu ne suñu diine ji lan moo ci suñuy gàllankoor lan mooy suñuy problème ñu tënk ko suñ demee ci jataay bi ne leen lii mooy jafe-jafe diine lii mooy suñu problème wutal leen solution wala ba wala ba amkana rijaalu diine an yajtamiu qabla ijaabati daawa li tawxiidi kalimatihim wa an yaxtaabu man yatakallamu bis ay su jàppale woon ba ñi nangu diine ji dajaloo laata daje ngir lan tënk seen kàddu seen bëgg-bëgg ñu tënk ko tànn kenn koo xamante ni bu demee danaa ñun ñu yor diine ji ñoo ba ak seeni cosaan ak seeni tëralin màgg na aaday réew mi ak seen cosaan ak seeni doxalin ba ci li gën a ñàkk solo muy am denc léegi dañ bu ñëpp dañu ko kon lu bon li bu ne soppi gi agsi na fii lu baax yi kon nag suñu dajee fa ñuy ye a daj suñu aada yeeg suñu cosaan yi li ci baax nañ ko nañ ko ne lii moom mënuñu ko ñàkk ñu booleel ñu itam ci xamal njaboot gi suñu mag ñi fi nekkoon moo xam ci wàllu politique moo xam ci wàllu diine ñu jàng leen xam ne koo fi laajoon Karl Marx wala Engels wala. keneen ak keneen Platon keneen mu wax la fa mu juddoo weer ba ak ba ak région waxal la lépp lii ma leen seen i aada ak seen i cosaan màbb na suñu aada ak seen cosaan seen fas ya jógee foofu sax far da ngay gis boo xamante ne ji dana benn fas juróom-ñaari maam benn fas diwa ko jur engala ko jur pétar jur ko pété tos jur ko ba ba ba ba ba ba ba àgg juróom-ñaari maam yow bu noo xam sa juróom-ñaari nekkoon démb nankoon diine yi mënoo cee dund kenn xam na ñu fi dund ñi nga xamante ne bii soo dund la ñoom dund ndaw seen dox la siis duñ ñu jàngal ma wata duñ ñu jàngal Cheikh Oumar Souleymane Ba ak ñeneen ñu mel waaye moom ñi ma la wax ñëpp ko xam kon aada yooyu ñu imposé ba dindil ñu li nga xamante nañ leen baaxle woon nañ leen ko laajaat ñu delloo ñu wa kaana min aadatina wa taqaalidina alxayaa wal iffa wal karam wa ixtiraam sagir bil kabir qabla al-buluugi fi mawaadina al-awwali a'ni bi daalika al-irsi wal baldan mbokk yi bokkoon na ci liñ ñu xamee woon bañ na sax Sénégal benn teraanga waaye contraire da leen kersa amatu fi ci wax ci jëf ci doxi ba ci joli kersa amul yi lii moom kersa ñàkk na yaay seet yaay bañ de ci yow la des subhaanallah ci koo xam ci ñoo xamante ni bii ëllëg yéen a ngeen war a yor fala ko ca xale respecteetul mag ormal la da ngay dugg ci kaar yaay maire la wala bàyyi la bu am cinquante wala jëm soixante ans xale boo xamante ni amul quinze ans toog bi mu téye portable leen di joué du la si gis sax xoolal puisque lan bu la nga nga may ko place day sëkk rek loolu xamuñu ko woon te léegi looloo fi nekk wala tansaw an tadaru xuttata sayri waadihatil maalim summa taxtarimu su ngeen demee fa ngeen di toog na ngeen teg lu bind ko itam la te respecté bala ñoo tàmbali lii nga xamante ni bii ñu ngi koy dégg démb foo tollu réew mi àll bi sax station yi ñëpp tabax nañuy station di xaar gaz ak pétrole yàlla ñu leen jàmm yàlla ñëw ñëw ñëw ñëw waaye ñu leeral ko. yépp li ci réew mi lii nag ma jiitalaale ci yi ko jiitoon lu mel ni pétrole ak kii wurus ak mel ak yeneen ak yeneen su ko defee peuple bi indépendance ba léegi mi ngi séentu leer waaye ci lëndëm la nekk su ñaar yooyu ñëwee boole boole fekk yi fi nekkoon lumière la doon leer xati fa lañu koy séen mu mën a agsi gën a ba seen dund soppeeku réew mi ñi néew doole sonn nañu ikhwani al-a'izza tadakkaru qawla Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu حين تم اختياره خليفة للدولة الإسلامية وليت عليكم ولست بخير fàttaliku leen keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna jullit ñi daje tànn Abubakar Ababacar waxtaan ak ñoom waxtaan bu rëy ne leen jiital ngeen ma ci seeni soxla jiital ngeen ma ci ma yor réew mi waaye walaftu bi xëy na ku gënuma ne ku nekk fa nga nekk da xamante ni bii réew mee la fi teg peuple bee la fi teg ngay jaamu soxla yi peuple bi mais peuple bi dalay fay ngay tedd ci seen i ba pare di leen dawloo seen ginnaaw bi seen soxla mun te nekk nañ soppi doxalin loolu mooy la mën leen na ngeen ànd man fii maa ngi ànd maa ngi topp yàlla a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale leen ma puisque dama am programme mooy lan dimbale leen ma ci seen i xalaat li ma leen waxoon ba ngeen fal ma discours bi ma leen joxoon ba ngeen am ci yaakaar na ma ci biir ñi électeur yi ñi kii candidat yi damaa bëgg ngeen jàppale ma parce que doy war na leen dama bëgg ngeen jàppale ma mën ko expliquer ngeen may jàppalee xalaat lu rafet ñi am xalaat lu rafet dañ ko indi ñi am doole nañ indi seen doole ñi am jumtukaay nañ ko indi kenn ku nekk li nga am ta te ñu soxla ko indi ko su ko defee li ma leen digoon ci programme moom du ko jafe waaye su leen ma falee ba pare seetaan ma itam du ma réussir. na ngeen ma jàppale program bi ma xamante ni moom laa leen gaarawoon ba mën ko jëfee wif ka masaalixi billahi wa defee ma mën a tàmbalee ci intérêt général réew mi régler yooyu soo ko walbatiku nag ci problème yi nga xamante ne bii mooy li topp ci yooyu mooy ñi dëkk réew waaye bu ñu fa dajee itam fàtte ñii itam du innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana innaka tasma'u kalamana wa tara maganana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa alayka shay'un min amrina nahnu al-bu'asaa wal-fuqaraa wal-junuud al-mushfiquuna al-maqtuuluuna al-mu'taduuna ilayka min dhunubina nas'aluka mas'alata al-miskin wa wa man hada laka rahmatuhu wa dalla bi usbihi umura